الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا ثم الصلاة والسلام على من قال من تودأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت الأظهار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 mi ngi nekk nag ñun ci iza ta'aynati najasatu ghusila mahalluha muy ñeenti masala yi nga xam ne dafa xaw a jege wantoo mooy bu la sobe laalee nga xam fa mu toll ak wala xamu fa mu toll ak yu ni mel comme ni ñu ko leeralal suñu dal si bii génn tey nag mi ngi bëgg a dikk ak ñun ci jaamu yàlla goo xam ne gu yitteel la boo xam ne képp ku sa xel daj julli sa xel dana daj jaamu yàlla googu ci peggam mooy jaamu yàlla gi ñuy tuddee jàpp nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala moo ko farataal ci alquraanam ca suratul maida aaya juróom jàpp juróom benn mooy fa muy wax ne yaa ayyuha alladina amanu ida qumtum ila lsalaati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsaxu bi ruusikum sama borom mooy ne yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla su ngeen jógee jëm ci julli na dem ngeen jàpp ji lu mel ni raxas loxo ak lu mel ni raxas xar kanam massa bopp ak raxas tànk comme aay bi dafa tënk rek farata yi yi nga xam ne moom lañuy raxas ginnaaw loolu tamit yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa képp koo xam ne jàpp nga nga rafetal njàpp gi nee na say bàkkaar day génn sa jëmm ba xattaa sa diggante yi we ak baaraam yi sax bàkkaar dañ fay jaar di génn kon jaamu yàlla goo xam ne gu yitteel la tey nag ñu bëgg a dikk ak yéen lan moo ciy farata ak lan moo ciy sunna loolu lañ bëgg a dikk ak yéen tey mooy fi borom téere bi di wax naan faraidul wudu i sabon mu ne faraidul wudu i faratay njàpp mu ne sabon juróom-ñaar la mu ne faratay njàpp juróom-ñaar la mu ne ci njëkk anniyatu mooy yéene yéene mooy farata bi njëkk comme niñ ko xamee ci xadis bi nga xam ne Seydina Omar moo ko jëlee si yéen yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy wax ne innamal amalu binniyaat ilax ba xadiis ba jeex mu ne jëf ju nekk rek dafa ajiwu ci yéene jeex kon farate bi njëkk ci njàpp mooy an niyatu mooy yéene kon mu ngi noonu nee na wa xaslul wajihi ak raxas saxaar kanam farata la waaye naka noonu wa xaslul yadayni ak raxas ñaari loxo ilal mirfaqayni ba ci ñaari conc yi loolu farata waaye naka noonu wa si masa bopp farata la commencé ci jëbi jëm ba ca ndong la loolu farata la waaye naka noonu wa xaslul rijlayni ak raxas ñaari tànk ilal kaabayni ba ci ñaareel di joor yi loolu tamit ci farata yi la bokk kon mu am nga juróom waaye naka noonu wat dalk ak ragg mooy bomb loolu tamit farata la waaye naka noonu wal fawru ak gaaw loolu tamit ci farata yi njàpp yi la bokk kon li ma wax noonu boo ko compté dana la jox juróom-ñaar mooy yéene mooy bi ci njëkk naka noonu raxas xarkanam ak raxas loxo ba ci conc yi ak massa bopp ak raxas ay tànk ba ci dijoor yi wal dalku mooy bomb gi sa loxo di bomb ci cër yi loolu farata la waaye wal fawru ak gaaw jàpp li ngay jàpp jóge fa bañ faa nekk mel ni koy foofu la nga jàpp ba ci digg ba sa téléphone sonné nga dem wuyu ba mu neex la ñoo na ngay continuer sa jàppam comme yi mel noonu lañu kon jàpp li jàpp jóge fa ah loolu kon mi ngi noonu li ma la limal boo ko compté mu jox la juróom-ñaar kon mi ngi bëgg a dikk ak yow ci sunna yi sunna yi nag moom juróom ñett la mu ne wa sunnanuhu sunnay njàpp mu ne xaslul yadayn yi mooy raxas sa ñaari loxo ilal kuayni ba ci tikku jare yi inda shuru'i ca ba ngay commencé sun na yi daal bi ci njëkk mooy raxas ngay raxasee loxo ba ci tikku jare mooy fi nga xam ne fi la takk montur wala lu mel ni ay jaraag yi ni mel comme suñu bokk jigéen ñi nga xam ne dañu koy faral di takk foofu mooy na bi njëkk waaye naka noonu mu ne inda shuru'i ca ba ngay commencé waaye bokk na ci sunna yi mu ne wal mad madatu galax ndiku la galax ndiku sunna la waaye naka noonu wal istinsaaqu sarax ndiku ah, sunna la waaye naka noonu wal istinsaaru ak fiiru sunna la maam dugal ngay dugal ndox mi ci bakkan bi xëcc ko xëcc gi sunna la waaye génnewaat ko mel ni kuy ñandu loolu tamit sunna la waaye naka noonu mu ne waraat du masu rasi ak delloo masaa bopp bi waxoon naa la masa bopp bi dem bi mooy farata mais dëpp bi ngay dëppaat ah, farata sunna la kon kon dem bi moo nekk faral farata moo masaa bopp waaye dëpp bi kon sunna la kon ñu bàyyi ko xel mooy mbokk yi nga xam ne dañuy faral def aller te duñu def retour boobaa bu ñu ko def nañ ko bàyyi kon dëpp bi sunna la kon sunna bi bu ñu ko du bàyyi waaye naka noonu mu ne wa masul usnay nii masaa ñaari nopp ne loolu tamit sunna la waaye naka noonu mu ne wa tajdiidul maa i ak nga beesal ndox tànqaat beneen ndox bu bees lahuma ngir ñaari nopp yi loolu tamit sunna la loolu tamit ñu bàyyi xel kon bul masa masa bopp rek boole ko masa nopp yi waaye boo masa bopp ba pare nanga nga tànqaat ndox mu bees pour def ko pour euh, pour nopp yi kon loolu tamit ñu bàyyi ko xel bu baax waaye naka noonu mu ne wa faraa bayna faraidihi ak nga toftale diggante farata yi loolu mooy lan mooy comme ni koy borom xam-xam yi di waxee booy jàpp boo ñëwee ba ci xar kanam foofu ngay dugalee yéene boo ñëwee ba ci xar kanam nga dugal yéene kon am nga kii kon am nga benn boo paree nga raxas xar kanam am nga ñaar boo paree nga raxas loxo am nga ñett soo paree nga masaa bopp am nga ñett ñeent kon boo paree nga raxas tànk ba ci dijoor yi am nga juróom soo paree mooy bomb ak gaaw boobaa farata yëpp dafay toftaloo moo tax kon toftale farata yi loolu dafay nekk li nga xam ne sunna la kon loolu tamit ñu bàyyi ci xel bu baax a baax kon mi ngi noonu xam naa ñi ngi ñëw doy loolu rek jëm ci jaaraat jaar bu gaaw ci anamam mbëmbëstal ci ki nga xam ne dafay euh, topp téere bi mu ne faraa idul wudo yi faratay njàpp mu ne saboon juróom-ñaar la mu ne bi ci njëkk an niyatu mooy yéene comme ni ñu ko waxee sànq comme ni ko Seydina Omar jëlee ci yéen ci yàlla Muhammad naka noonu wa xasul wajihi ak raxas xar kanam ah farata la waaye wa xasul yadayni ak raxas ñaari loxo ilal mirfaqayni ba ci conci farata la waaye naka noonu wa masu si masa bopp farata la waaye naka noonu wa xasul rijlayni ak raxas ñaari tànk ilal kaabayni ba ci ñaari dijoori loolu farata la waaye naka noonu mu ne wa dalku ragg mooy bomb bi ngay bomb cëri loolu tamit nee na farata la waaye naka noonu wal fawru gaaw jàpp li ngay jàpp jóge fa loolu tamit en farata la waaye naka noonu mu ne wa sunnanuhu sunnay njàpp juróom-ñett la mu ne bi ci njëkk mooy rasul yaday ni mooy raxas sa ñaari loxo ilal kuayni ba si tikku jare yi mooy fi ñuy takk montre gi ni mel boobu mooy sunna bi njëkk moo tax mu ne inda shuroi ca ba ngay commencé loolu sunna la waaye naka noonu wal mad madatu gàllax ndiku la waaye wal istinsaaqu sarax ndiku ah sunna la mooy dugal mi sa bakkan bi loolu sunna la waaye naka noonu ak fiiru génne gi ñu koy génnewaat loolu tamit sunna la waaye naka noonu mu ne wa raddu masur asi delloo masa bopp bi masaa bopp waxam naa la dem bi mooy farata mais dëpp bi sunna la kon loolu tamit ci sunna yi la bokkoo waaye naka noonu wa masul uznayni ak masa ñaari nopp loolu sunna la waaye naka noonu wa tajdiidul maa yi ak nga beesal ndox mi lahuma ñeel ñaari nopp yi loolu tamit ci sunna la bokk ñu bañ koo bàyyi waaye naka noonu wa tartiibu ñu toftale bay na faraidihi diggante farata yi loolu tamit ci sunna la bokk kon ñi bokk ci bàyyi xel bu baax a baax xam naa kon ñu ngi ñëw doyloo loolu tey mu nekk suñu dars di wax ne lépp loo xam ne leer na ci dars bi ñu ngi koy sante yàlla waaye lépp loo xam ne dëng na ci ñu ngi koy jégalu borom bi te di leen ko jégalu di wax ne in uridu illa al islaha mastataatu wa ma tawfiqi illa billah ginnaaw loolu tamit ñi ngi sant mboolem mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy topp ci internet bi naka noonu tamit di leen woy di soññ di ñaax ñu woy di abonné naka noonu tamit di sant suñu caméraman bi nga xam ne moom lañu jàkkaarloo koy gërëm bu baax a